تقرى إلى الله وحده yanaalul maqaama la raja ngir ngeen di jot suñu vidéo nag fooleen leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew wala bitim réew wa yuxyi arda baxda mawtiha wa kazalika tuxrijoon ashhadu an la ilaha illa وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم سلم اللهم سل وسلم على أول صور مستخرجات من الحمار باني وأول فيد موحد عابد مخلص للحق ومفيد من فيودي جودي رحماني نور أنبيائك الأخيار ودياه ملائكتك أبهار وبمقتبس أوليائك الأبهار أما بعد نحييكم بتحية إسلام على هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غناو بنيو سنتي يالله yàlla yàlla mi moo sell ci asiliyu sell goo xam ne jiit na lépp di sell xudduus ci bépp pays ci pays yi sell na fa moom yàlla yàlla moom sant nañ ko si mbindum Sidi laa jox ma ndaw ses laa jox ma ndaw bi nga xamante ni yi dañoo raj rajloo ci yoon wi jëm suñu borom ñii da daw cent ñii di daw deux cent ñii trois cent ñii seen pneu yi cré ci yoon yi ñii seen moteur yi toj ci yoon yi si laa jamoon daw ne leen fur cap ci ndimbala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ko ndax dëkk bii ñu ne mooy Dakar miin ngeen centre commercial yi miin ngeen immeuble yi ki jaar si escalier ak ki jaar si ascenseur ku gën a gaaw ah si laa yow ndaw ascenseur ci la jaar kan mooy ascenseur am Seyduna Muhammad kooku moo ko wan xaq mu xam xaq yàlla na mu woon yonent bi mu jaamu ko noonu la yonent bi digalee Seydi Laaji Omar Ndaw mu jaamu yàlla ni yàlla digalee yonent bi ne ko jaamu ma kaana abdallahi la abda xablahu wa kullu abidin taabiuna li xalqi yàlla moo digal rasulullahi mu jaam ko rasulullahi moo digal bépp jaam waaye ci ndigal loolu dafa am isnul xaas isnu boo xam ne xaama dañ na yépp mooy risalatu muhammad laa taxfa ala aadin loolu moom ñépp ci yem waaye am na xusuusiyaat nag xusuusiyaat yooyu nag si dalaa moom ndax dafa bokk ci ñi nga xam ne ku dul yónnante féete woo ko kaw kooku moo ko digal mu jaamu boromam ni yàlla waxee yonent bi na ko sant naa la nag ma sant yonent bi sant yàlla yàlla sant ko ci laa jamono yonent bi digal ko mu sant allahu subhanahu wa taala mu ne ko alhamdulilahi alquduusu fi xay bi la xawoon maa ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy quduus ci lu nëbb ci pays yu mag yi almutajali bi asmaahi wa sifaati fi hadrati laahut yàlla mi nga xam ne turam yi ñuy def ay tajjaliyaat ci mboolem loo tudd amut loo mën a tudd ci kaw suuf génne ci turu yàlla amut xataa sa téléphone bi sax boo ko toppee danga gis turu yàlla mu ngi ci biir ndax lépp ci dëxëñu na ci tajjaliyaatu suñu borom yi waaye nag loolu dafa am port port ba mu jaaree nag kooku mooy Seyduna Muhammad guddi gii moo ñu tax a toog fii ñi tagg ko màggal ko ci mbindum Seydi El Hadji Ndaw kon nag day mel ni sàkket laat yi la ak findifeer gi ak gattax yi ñu koy ràbbalante Seydi El Ndaw rasulullaahi allahu jabaar subhanahu wa taala bu ñu fi jógee ñaan xaaj yëpp faju man ci kaw suuf dama weesu foo xam ne bu adduna bi yëpp dajee woon def xutba ba mu jeex takk ñu ne Basiru Ndaw kaay wax duma ma xam li may wax sama bàyyi moo jiitu ci man Seydi Taahiru Ndaw waaw jiitu ci man jiitu ci man njëkk ci man mujj ci man Seydi Taahir yàlla na ma ko yàlla fayal nuyu ñëpp ñu ngi ci fekk nuyoo bi gën ci nuyu mooy jàmm yàlla nekk ci ñëpp yéene naa ko ñëpp yàlla nekk ci ñëpp ci xormay guddi gii ñu toog xaasal nuyoo Abdullahi mii nekk sama wet di sama rakk rakk ju mat rakk dëgg moo ngi nii teg ci sëñ Lamine mii ma jàkkarloo xam ne bu ma su ma ñëwee daaru daf naan ma bu may ñibbi day triste danaan ma instant yi danaa wéet sëñ bi su ma ñëwee mu ne mu ne ma temps yi yëpp xaw ma fu may dem moo ngi nii jàkkaarleeg ma sëñ Nooru moo ngi nii ku ma xam xam ma ak moom ñi toog fii nii ma jàkkaarleeg ñoom nga xam ne ñoo nekk sama wet séq ma ci buy naaj ci buy tàng xaasal naa leen nuyoo ngir jëmmi xalifa Mouhamadou Bassir nga xam ne amul benn xiwal goo xam ne dina ñëw si sama jëmm ji njëkk guddi ga Serigne Bassir dina ma feeñu su ma xëyee doo ko daj xëy xiwal googu amul nag amul dara loo xam ne nii man su ñëwee dina ma bégloo lu su ma tëddee dinaa gis xalifa Mouhamadou Bassir billaahi walasi laa ilaha illa allah ko gis ba pare xiwal googu doogu ñëw maa ngi leen di ziyaare ndeg jëmm jooja suñ mbokk waa daaru salaam yi yépp su ma naree juum damay euh, liim damay juum waa ahlu mahabba ñu ngi fi ñi nga xam ne ñoo bokk dëkkee dëkk bi ci Dakaaru Njaay ñépp fa gën a sori ñu jógee fa ñëw toog fii nuyu naa leen ziar naa leen ngir jëmmi bés bii daayira ansaarullaahi yoo xam ne ñoom seen bakkan bi kii boo ko xaroon kéemaan ngay fekk ñu bind ci maa ngi leen di sant di leen gërëm ba may ànd ak ñoom di dugg ci marché jor bi di di yëngal bool bi ngir luñ taxawoo dem daaru salaam bo maa ngi ci biir daaray maamu Dramé di jàng dafay yàgg 2006 la ñun ba ñuy jóg du tey du kenn koo xam yaay taxaw sama kanam wala di ci sama liggéey di saltel loolu na ko ñëpp bàyyi xel te nag dama ko xam nii gis naa ko man tollu ma fu may nëbbatoo ak fumay may làqatoo Babacar dama lay jox gërëm si marché balaa la fekk ngay jaay ma ne la baal lii ñëw ma def ci yow nga topp ma na nu mu neexee nga bàyyi ko yëpp topp ma ma def ci yow loo xam ne sama ndigalu wéyjur laa ko jëlee Seydi Taayir di sama sëriñ ci kanamam bi muy dund laa ko def te li ma def kenn mënu koy daj is nu ku la ëpp xaas ki Alaaji Mondo amul man maa ko wax man sama muqaddam ku ma ko bindal Seydi Alaaji Mondo moo la ko bindal xanaa nga ñàkk fayda fooyee ko àdduna nag da am gaynde ñu xeebal la ko ba nga jàpp ne muus nga yor te fekk yaa ngi yore gaynde waaw bu borom gaynde gi ñàkkee bopp nag di dox di doxee dox yi ni muus waaw waaye man li ma war def naa ko ci yow sant naa la gërëm naa la Cissé Yawaxit yow sa turi rek dafa doy siise Cissé Yawaxit sant nañ la teg ci loolu yëpp nag waa daayira bi nga xam ne ñoo organiser lii xam ne tey jii ba ñuy ñëw fii laylatul laa ko guddi sax lekk nañ ko fii ñun ànd ak ñaari mbooloo ba ñett ngir bëggoon bés bu toll nii waaye nag guy gu gaa ngi nii wolof la dégg ngeen wolof bu baax guy guddaar daar gi ci la gone yi di daan ngay yéeg guy gu gaa ngi nii maa ko waaw daayira bi nag ñu ngi ci jiital ci nuyoo bi yépp ak ziar bi sunu mag sunu kilifa muy sëñ Daraame këram lañ doon dal fas laa dégg moom kóllëre te yàlla rek tax tey jii fa laa naroon jubale ñi tourné ma ci geneen kër xëy na programme bi ak organisation bi moo laajee noonu man niti démb ak niti tey yëpp a yem ci man ndax ku may ànd yàlla ak rasul lay la ànd yow waaw kay loolu du ma ko fàtte su ko defee mu mel ni loolu yëpp ak nuyoo la jagleel ko mboolem jullit yi yëpp fi nekk yëpp bàyyiwuñu kenn teg ci sama xarit Mor jóob Simbara waaw suma xarit la suma xarit la te ku may dimbale bu baax la ndax man sama siyaare bi laa am ak sama kurus gi nekkuma ci tool yi nekkuma ci marché yi samay tool mooy lii bu bàq bi tooyee ñëpp di njëkkalante machine ak disque graine mbuus man maa ngi njëkkalante yéen taalibi alaajamandaw yii ok loolu rek mooy li nga xam ne moo doon nuyoo bi ñuy fas yéene nag dugg ci li nga xam ne mooy liggéey bi ñuy sant mooy gàmmukat man duma gàmmukat sayxu tarbiya laa sayxu tarqiya laa sayxu tarbiya laa noonu ko ñëpp xam kenn waxati gàmmukat man du ma gàmmukat sayxu tarbiya laa sayxu tarqiya laa damay tarbiya ay nit damay tarqiya ay nit di leen yéegal ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Tahirou Ndaw kuy wax lu ëpp fukki gàmmu ci at bi kooku du benn bés moo koy jaaxal di nekk écran bu rëy ci moom rawat na loo xam ne ci jamono sa njëlbeen nga ko nga ci nekk ba heure bii mbir nag nu mu ñëwee rek man laa koy traité Abdoulaye nag ma dalal ci alhamdulilahi mun sil hibbin karamin ñi wax si rasulullahi wax si di laa jamono ndaw ñaanal mbooloo mi danga mel ni koo xam ne danga nga fekkee xare badar walla nga fekkee xare nii wala uhud di xeex ak yéeféeri bañ daw yool bu toolu noonu ki bég ci tagg yonent bi sallallahu taala alayhi am na ko ci laa jamono nag di tagg rasulullahi njëkk mu koy tagg mu jiital sant ki tagg rasulullahi alhamdulilah. mu ne alhamdulilah mboolem xaaji cant yi ñeent. musili bi. maa ngi sant yàlla mi nga ne moo sos soppe bi. min karam. jëlee ko ci teddenge. baxla. def ko muy géej. muy tan. goo xam ne aji peeg la. di diine si diine dëgg ji. wali ak xikam mooy xam-xam boo xam ne yàlla la ko yenkabal yàlla ak boppam dana nekk te dara xamul mu nekk hayyan muridan aliman xaadiran samadan nekk koo xam ne mu ngi dund dund koo xam ne du dee nekk koo xam ne alim la boo xam ne lam xam du ko fàtte ku yàlla rek loo xam mën nga ko fàtte wala am lu ca manqué wala am loo réeree waaye yàlla nekk aalim boo xam ne xam na lépp te kenn xamalul ko nekk muridan koo xam ne faalul lima yurid la mooy def li ko soob ci nguuram gi mooy def lu ko neex te kenn du ko laaj li ngay def lu tax nga koy def mu nekk koo xam ne xaadiran mooy dogalaa koon bi mooy dogal lépp loo xam ne ni dana xew ci mbindeefam yi te kenn sañu ko laaj li nga dogal nii lu tax nga dogal ko yàlla moomu nag nekkuntu kansan lam woraf fa ababtu dégg nga nekk naa ndàmb loo xam ne kenn xamuma ma bëgg ñi xam ma ma bëggee ñi xam ma nag ci laa bind mbindeef moo xam ne ci lañ maa xamee ñu ne ko mbindeef moom mooy kan mooy ruuhu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci laa jamandoo na ko awulu maa kunta yaa rahmaanu tub di ow ruuhu habibika li njëkk la nga xam ne génnee nga ko ci ijaabul bu toon loolu de mooy ruuhu gi nga xam ne mooy ruuhu sa soppe bi yàlla nekk na moom kenn dara xamut mu bëgg am mu xam lam njëkk a xamal mooy ruuxu yonent bi salaay bi mu xamalee yonent bi salaay salaam nag génnee na ko def ko muy leer goo xam ne dara fekkul ko foofu mu nekk leer goo xam ne sunu borom namm na ci moom mbir ëllëg daal di ko digal pour mu jaamu ko mu sant ko gërëm ko mu yonent bi sax ci fukki junne hijab ak ñaar yoo xam ne mu ngi jaamu suñu borom di jaamu suñu borom jaamu koo xam ne. mbindeef mu yàlla bind lottu nga ci jaamu googu ndax suñu borom foofu la ko joxee li ñuy wax sirul ahmadiya kooku nag la Seydi Laaji Omar Ndaw bëgg a tagg ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo sa soppe bi nga xam ne mu yàlla mi nga xam ne moo soppe bi yàlla mi nga xam mooy borom mooy borom tedd nge mooy mooy géej mooy géej gi nga xam ne moo sos géej gi nga xam ne dégg nga mu jaam bi nga xam ne dégg nga nekk na bëxëran nekk na géej muy tan koo xam ne peeg na bi diina xaqi ci diine dëgg ji rasulullahi bépp diina dégg nga sallallahu alayhi peeg na la mboolem diina boo xam ne nii mos nga ñëw yaa ngi génnee ci diinay muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wasallam diine yëpp diina lislaam nañ dafa fekk yonent yi nga xam ne jiitu woon nañ fii ñoom kenn ku ci nekk da doon ñëw waaye boo ñëwee da ngay wax ci dégg nga xarnu ba nga xam ne ñoom nga dajjal waaye leer gi nga xam ne suñu borom jox na la ko dafa mel ni làmbu torse bii rek boo ko jemee digg bii la mën a yem waaye waa parcelle duñ ci ñiitu moo taxoon yonantu yooyu yëpp dañ doon wax kenn ku ci nekk euh, ca gox ba nga nekkee ak jamono ja tolloo gannaaw nag moom mooy muhiitun mooy ki nga xam ne moo peeg lépp bi mu ñëwee ci la ko yàlla jox risaale bi na ko nag wa maa arsalnaaka ilaa rahmatan linnaasi waaye nag ilaa kaafatan linnaasi de yóbbalu ma lurut nga yërmande ci xeet wi waaye tamit defuma la lurut nga daj mbindeef mi yëpp sa yónne sa sa woote gi daj na mboolem foo xam ne yàlla nguuram ko jote na fa te yàlla amul fu nguuram ko jotegut kon bi ma xanaa woote Muhammad bi daj na képp koo xam te ni yaa ngi si kaw suuf xuyu ak ñàkk xuyu moo fi nekk waaye ku xuyu ak ku xuyuwut yëpp woote bi dal sa kaw te yëngu ko fu waaye mën a nekk xam nga ne yàlla bind na jàmm boo xam ne mu ngi tudd Seyduna Muhammad juddoo màkk da nga jaar Madina jógee fa dellu si waat màkk jógee fa mujjee Madina digli loo xam ne ba yowma xiyaam dafa jógee kooku nag la si laa jamono ndaw di tagg lahol kamalaatu mu ne loo ñeel na ko moom yàlla kamalaatu ay mat wal xaybaatu ak mboolem xeeti wegal yi moom faridan moom kot dong mulki bil mulki ci nguur wal madi ak tedd nge ak des ba faw ak jiitu ba faw yàlla mooy ki nga xam ne mat yàlla rek moo ko des ku yàlla am nga lu manqué ci yow ku yàlla rek am na loo xam ne manqué na ci yow yàlla mooy ki nga xam moom la lépp a mat dara manqué wu ci moom wala baat xeeti wegeel yépp yàlla moo ko dajale lépp loo xam ne am na xëy ba wala koo xam ne ragal nañ la boo boo taseeg moom ci mbedd daw moom it am na loo xam ne su taseeg moom daw gaynde mi ñuy wax buuri xàll bi la sax am na mbindeef mu yàlla bind moo xam ne su ko gisoon dana daw te mooy doomu aadama kon nga xam ne not lépp yàlla rek moo ko def Seyda jamono mu ne yàlla moom nag mun faridan adi beddeeku la bil mulk ci nguur nguur yàlla rek moo ko am buur yi àdduna bi yëpp seen nguur yi dara du ci nguur ndax bépp nguur goo xam ne si jeex la jëm buñ ko dëkkalee nguur gu du jeex nguur googu dootu nekk te nguur ci laa jamono mu ne yàlla mun faridan bil mulki mu mel ni dafay def tawhid jëmale ci boromam mu ne majd tedd nge yàlla képp moo ko am képp ku am tedd nge si tedd nge allahu subhanahu wa taala nga ko am moom mooy kii am tedd nge te du ko ñàkk ba faw kon wax na ci pas-pasu jullit bi suy ut teddenge mu ut ko jëmee ko ci digganteem ak boromam waaye bañ ko jaaree ci loo xam ni maxluqaat la ab mbindeef la wal baqa mooy ki nga xam ne moo fi des képp ku mu doon si ñun danga fi nekk ba yëg ne yow mii yaa ngi fi waaye da xëy jógee fi ba yëg ne yow mi tam nekkoo fi ku mu doon si ñun ak lu mu doon si àdduna bi sag nekk mën na ñëw ba ñëpp ne mu ngi fi waaye sag dem dana ñëw ba ñëpp ne dem nga yàlla rek mooy ki nga xam ne mooy ba xaaw xasadu anta Seydi El Hadji Omar Ndao mu ne xasadu jublu naa amta am ndaa a muxtaarin mutaribatan gën say rafeti tagg sam gën say rafeti tagg mu ne yow mii nga xam ne yaa ngi may déglu man Seydi El Hadji Omar li nga xam ne nii maa ngi koy wax jublu jubluwuma ci ku ma wax Seydi El Hadji Omar Ndao yaa bëri xam-xam jubluwuma ci kum wasi daaja wa ndaw doo nit de jubluwuma ci dara lurut lurut sellal suñ borom bi mu ne xasa moo tax mu ne xasatu jublu naa am daa am muxtaarin gën say rafet tagg ci muxtaar mu tari ba ngir mu kontaan ñan ëxla safa wal wafa ak ña motaloon kóllëre wal ak ñi nga xam ne ñooy borom soppe ak ñi borom ak liggéey si mu ne xasida gii bi ma koy sadd di ko woy du dafa am concurrence bu tax ma bind ko moo dàq bind diw si laa jamandaw moo ëpp xam-xam diw ma bindoon sàngam mu ne déedéet kon doo jëriñu de yow taalibe bi bu fekkee dangay déglu woy wi naan si laa moo dàq bind diw woy wi may bind yow génn ngi ci yool bi ñu ne ko lu tax ndaku ndaa maa ngi tagg muxtaar muxtaar mooy ki ñuy tànn xiyaaru xalqillaahi wa xalqi mooy ki ñuy tànn mu gën ci lépp li yàlla bind nekk awalu maa kunta yaa raxmaanu tubdi u ruuxa bibika nekk awalu maa kunta yaa saa'iru tusiru nuur hijaabika kooku lakkal hijaabaani muhtaaruka safatuna wa kibriyaawuka séedalaa jawandoo moo xabi rasulullahi mu ni ki may wax nii la yàlla tànn mu gën lépp lu mu bind def ko muy cosaanal mbindeefi def ko muy di ki nga xam ne waxat kaana maxluqan li rabbi muwahidin wa kullu bara yaawul yasin li habdi wa walay si rajo man ndaw mu ne def naa ko muy mindeef moo xam ne moo ma gën a lépp lu ma bind képp ku ma ti jëmm ji moo tax ma bind la kon kay jëmm ji moo leen gën alaaji xama ndaw mu ni ki may tagg mooy saahir bi nga xam ne la yàlla njëkk a génnee si hijaabul butuun ñu ne ko lan mooy hijaabul butuun mu ne loolu mooy alxamaara baan yi xam na lu ñuy wax xaqiqatul muhammadiya danañ ci ñëw de bu soobee yàlla am na lu ñuy wax alxaqatu muhammadiya danañ ci ñëw de bu soobee yàlla fii ma toog balaa mu fiy jóge lu mu tudd ci mbindum si yow ndaw danaa ko toj ba mu ne tàcc na tasaar lan ma laaj ci barkeem xaajo yi faju barke Cheikh Mamadou Tayer alaaji Omar Ndaw mu ne lu tax ma bind xasida gi ngir na kontaan loo ahlu safaa ñooñ sell ñi képp ku sell ca loolu nga bokk waaye safa jagleñ nañ ko malaayika yi ndax ñoom laa yoosoona laahu ma amarum wa yafaaluuna maa yumaruuna ñooñ ñooy safa ku dul malaayika duñ la mën a dugal ci safaa doomu aadama nag ruum gi mën na naaw di yéeg ba xegg ci safa ndax suñ borom moo ne laqad xalaqana linsaanu fi ahsinin taqwimin waaye su ma raddadna asfala saafilina su ma boobu moo tax doomu aadama du dugg ci eh, lurut safa moo tax doomu aadama du génn ci safa de waaye nag doomu aadama mi nga xam ne moo tax malaayika moom du génne si safa moom amul summa laqad xalaqnaa insaana fi ahsanin taqwiimin bind naa doomu aadama gën see mat ci ay disposition ñi jàng français xam na la mooy disposition jox la bépp jumtuwaay boo xam ne boo ci tënkoo ëllëg di nga dajeeg man te dinaa la gërëm danga xam ne jàkkaleeg wajhu rabbika dara melul ni moom moo tax si laa jamono naan ko waru wital maadi ah wa ruyatul haqi fil mahadi saabitatun gis yàlla yowmal bis penci mënu lu saxla de waaye nag wa ruyatul haqi fil ma uh, uh, uh, wa ruyatul haqi fil mahadi keroog bisu delluwaay bi nee na saabitatun aji saxla de loolu moom lu saxla de waaye ñan ñoo koy gis mu ne li ahli diinika كيف كو أمول دينه بكرة يلا بكرة يوم القيامة بس إن برام تكان سنتي ويوم ينفقه في السوري وفشيها من في السماوات ومن في الأرض إلى ما شاء الله ثم نفق في أخرى فإذا هم قيام ينصرون وأسرقت الأرض بنور ربها ووديها الكتاب كانت كره نجد جس الله سبحانه وتعالى كو جس الله كانت دعا حلق ينوغا يوسم بولو مي فلاي نكرو muna mun bu karaga nahnu duyufun wa ahbabun ila samadin mahsil maqamati man de wa ahbabun ila samadin mahsil maqamati mu ne alquran dafa wax ne nu fiqa fi zuuri yàlla yàlla faj sa aajo na conteneur yi yokk magasin yi yokk kër yi yokk oto yi yokk soxna yi yokk doom yi yokk xalal ji yokk wér gi yokk daal taalibe Adama Ndao loolu rek moo ko jaaxal waaye aljana préparé na ko bu yàgg ndax jëmm du dugg aljana ruuxu mooy dugg te ruux gi Adama Ndao tànn na ko ba gars yi di njëkkalante ruux yi ni fëgg jaay ñu balam fëgg jaay su ngeen demee Colobane bu ñu bal bi 6 heures du matin yi dañuy njëkkalante Adama Ndao foofu ba ñuy njëkkalante def na ko yàlla yaa may tànnal yaa may jox mu ne ko lu mu lay jox mu ne ko nawi la naa rabbi arwaan tuwasiluha ilal maarif gaa yaa ngay tànn naay Adidas mu ne déedéet man ñi may tànn mooy ñoo xam ne dañuy joti seen borom Nike Adidas mooy ñuy tànn borom alal milliardaire wala kuy tànn ku euh, aljana wala safara alaaja man doo mu ne sama kuréel gi aljana safara xam-xam yooyu yëpp xeebu nañ ci liggéey bi may liggéey jëmale ci ñoom li may liggéey jëmale ci ñoom mooy ñu am wusuuru ilal habbi minallaahi am wusuul sa diggante sa borom yoquudusul xel mi ilal jinaan wa yuusul xaarif li rahmaan kooku mooy seen sëriñ bi kooku mu ne tagg yi nga xam ne maa ngi koy tagg yàlla di ko tagg yonent bi ngir mu kontaan loolu safaa la ne naan safaa mooy malaayika yi ndax ñoom laa yuusumu laahu ma amarum wa yafaluuna ma yumaruuna du ñu moy mukk li leen yàlla digal yàlla am na benn lu ñuy wax kaaba ñu tuddee ko baytul mahmuur mu ngi ci asamaani juróom-ñaar jibril dana dugg ci géej gu ñuy wax baxarul xëy baxarul xissi su duggee foofu day sangu bi jubil am na ñetti téeméeri mbagg su foto foto benn mbagg mu ne dana génnee ñetti téeméeri toq toq bu ne dana génnee ñetti téeméeri ne malaayka malaayka yooyu yëpp waxtu wu ne ñu ngi wër kaaba gi te bu ci wër dootoo waraat moo tax yàlla ne sama junuud bi kenn xamu ko ku dul sama ku dul man mii junuud nag suñ ko waxee mooy dispositif bi nga xam ne bu ministère de l'intérieur xam na la mooy junuud mooy dispositif bi nga xam ne di nga ko teg pour teg sa kaaraange ay soldat la ñu doon ñoo xam ne leen xadoo ngir faj mer ëllëg mer moom nag ku ci bëgg a mucc da nga ut sayxu mu rab mu dox sa digganteeg bakkan dox sa digganteeg xaduna dox sa digganteeg saytaane bu ëllëgee nga mucc ci lool ndax junnoodu boobu suñu borom pare leen ñu ne ko laa jamono sa taali bi ndax mucc na si mu ne waaw wa xosili nafs wa jinna wa taqiyaat wa musiyaat ayaat xas so yàllaaw mosal mus nañ ci bakkan jinne sadd la dala wax loo loo xam ne bokkul ci yow mu ne loolu mucc nañ ci wa musi musiyaat lépp nag luy ba rek nag lépp loo xam ne musiba la rek taal sondeel sax yonent bi nee na taal sondeel mu fay te bëggoo mu fay sax musiba la laaja borom mu ne loolu fàggandikul naa sama na ci bi yàgg xaalifatan kon mu ne ëxlu safa ñu ñooy kon xam ngeen safa mooy ki nga xam day te du dëñ ci sell ndax amul possibilité def safaan waaye doomu aadama dana am safaan waaye dana am safaa ndax gis nañ si ma ndaw tarbiyee na ay taalibeem ba ñuy gis malaayika ku ñuy wax Moussa Ndaw ci laa jamono tarbiyee na ko ba mu toog ca néegi taalibe ya nekkoon ak taalibe ñu hubbil ko mbeddi malakoot hubbil ko mboolem malaayika sàngam fa taxaw rukkoo gam rukkoo la muy sabal muy toq ci nopp Moussa Ndaw te kooku ne Seydi Alaaji Omar moo ko tarbiya moo tax mu ne bu ma kenn waxti gàmmu kan man tarbiyatu xaas la xamee ñi ne Basiru Ndaw li nga wax nii naka la mën a ma ne déedéet damay sukkandiku ci addis bi yonent bi wax waxoon anfaqa dégg dafa am ku wax ansara dafa dem ci marché bi di dox nekk ci mumbaay gi ñëwaat ci kër gi fekk yonent bi mu ngi toog di waaraate xol bi di yéeg di yéeg ba mu jàkkaarleeg mbedd malakoot su demee ba ci kër ga rek nekkaat ci soxla buntu ba dafa fattaat ba dugg ci dara mu deseeg Seydina Aboubacar mu ne ko naa faxte man kat ndax su rasulullah sama xol bi dana yéeg ba ma jàkkaleeg pay malakoot waaye su ma delloo sama kër sama xol bi wàcc ma toog ba xaduna ba du ma gisati dara mu gàdd ko ci loxo yóbbu ko Seydina Muhammad mu ne ko law baqiitu xala xaalatu safa su fekkoon man ngeen sax yéen saa bii ci xaalatu safa bi bii konoon da ngeen saafuwante ak mbeddi malakoot da ngeen saafuwante ak malaayika yi da ngeen saafuwante ak jibril alayhi salaam alaaji Omar Ndaw nag la daan lëntal doomu aadama ba tax xaal safaa boobu mu ciy débranché wu di dem ci leneen loolu la daan na di ciix sànni ko sa xaj nga dajeeg ilaahi yu loolu lañuy ñuy songee toppee sëriñ du liim xam ngeen kenn ku mu doon si yéen ñii xam nga mag mu la jege mu jaayante woon ñëw ci Seydi Laaji Omar Ndaw waaye ba mu fa jógee xam nga ne kii daj na te lam daj néew na ku koy daj ci kaw suuf lu ko defoon dañ ko donnaloon أهل المقامات ودقني وهدني عبدا ثم مالكو بيبا بيبا ليريا كوزو فاديا مواهبي tajiliyaadi lépp dañ lip taxañ def ko ci carnet ñu téere bi ni ko tël yaa seex seydi laa jox ma ndaw moo ko wan taqi nii tànn la wax tànn ay nyubari ñu bari ñooy dajee nga nga sélectionné football sax 22 yëpp duñ ah booy tànn da ngay tànn ñi nga ëpp yaakaar mu ne yàlla moom a tànn dem ma abdan wante naa wax di ni abdan mu am jaam boo bàq na da ma jox tummalikuwu mooy capitaine maam di ma moom loo loo may moom loo ëxlaa gën ciy kawe maqaamaati ci boole maqaam yi ñu ne ko nag maqaam mi gën a kawe moom yónnante la nabbiyu la mën a déet laysa nabbiyu na wal arsaal kulluhumu bi mudrikina li siri ahmad halam wala waliyun laysa nabiyun